maam saxiir suñu xool góor googu daanu bëggal kañ ngay ñëwaat ñu dëfal suñu xol yi xool sa kanam maam saxiir suñu xool góor googu daanu bëggal kañ ngay ñëwaat ñu dëfal maam danga mere sab sët doxinaam tax bëggulaa daje ak moom mbaa nga gis kanamam ay weer a mu ngi lay wër bukratan wa masaa guddeeg bu jant bi leere ngir janook sa kanam xolam bi feese na tiis njaxare ki na xar ni seet bu yebbi ba xëy ñu tàgge koy jëkkëram ni yaay ju ñàkkam peran tal bu ñàkk ka doon doomam ju dégg ndigal mbaamam ju ñàkk sëtam maam saxiir sunu xool ju dégg ndigal góor googu daal daañu bégal kañ ngay ñëwaat ñu defal sunu xol yi ka doon doomam ja dégg ndigal mbaa maam jirim bu ñàkkati yaay baayoo bu ñàkkati baay sàmman bu ñàkk njuram taalib bu jooy sëriñ bu daara jéggenta njur mu sàmm bëréer way jur yu xëy robi doom ja des mu fekki rakkam mbaa bu ñàkk ka doon maa mam ju walla doom ju baay nday ja xëy dem bàyyi kook na xaram jëkkër ju tukki ba ñëw xëy seet balaa ko ba foo maam haabi xaalati arju kaway fu ma jëm imaam saxiir sunu xool góor googu daan daanu bégal kenn ñëwaat ñu defar sunu xool yi xool sa jëkkër ju tukki bañaaw xëy balaa quba faw maamaalihi xaalati arju kaway fu ma jëm yaa bàyyi nonga bi reer yaa gaal gi mu yaa bàyyi sëf sën mu saalit yaa fi xotti xolam imaam saxiir suñu xool góor googu daan kañ ngay ñëwaat ñu dëfal سني خال خال سكنا إمام سخير سنو خال برقو قدان بقل كنجين يوان يدفل سنو خال خال سكنا إمام سخير سنو خال gorgo guda ñu bëggal kañ ngay ñëwaa bi defal suñ xoli xool sa kanam xanaa sa tukki bi dootul jeex nga dellu si xool njaboot gi maam bu la neexee delluwaat fa nga jëm yow man yow man bu janta bi soo nga deluat ñu defal seen xol yi fàtte na xar wi sàng seeni kanam mbaa saatan lahdatan xanaa na moo sa njaboot ñur gaa ngi nii di la xaar sàmmaan bi aw lanu am imaam saxiir sunu xool góor googu daanu bëgg kañ lay ñëwaat ñu defal sunu xol yi xool sa kanam baasaatan lahratan xanaa na moo sa njaboot njur gaa ngi nii di la xaar saman bi yow lanu am maam réere naa yoon wi kay xalaat ko yow mi kaman niital malëndëm ginaa wil ni sa tumbi ba xam maam fàtte naa li ma jàngoon kay sawaat mata dem firil ma masalatan bindal ma saar wu ma xam maam aw ma fit wu ma xuusee gol bi kaay gindi ma seytaane man na ma kaay sotal ma may ma ci maam maa ngi di yaakaar mbaawa maghfiratan nga dem xarit ci borom bi nangu ak yonenam imaam saxiir sunu xool góor googu daan daanu bégal kañ ngay ñëwaat ñu defal sunu yi xool sa xidmatan nga dem xarit ci boroom bi nangu yonnenam mama ngi nii xiif temar ngay teen di ma idatan mayab dagaan kat di ngay boroomi am bu dee manoo ñëw ñu dundaat xol bi naa tati kon bàyyil ma ñëw toog sawen ngir dund xool sa kanam ma ñëw doon saxaa dim toog bi xadarati ko loolaañ ma jox la du war loolu war nga ko xam مام سخير سلوخان غورغو غدان كانيي نوان ني دفا سلوخان يخول سكنا بايل ما نيو دون سخادم توك بحضرتكم لا لاج ما جوخلا دماي xam na buur bi dolli salaire bi addi maaxu li xaa ñuy sax di julli ci njiin ak toppa ay ndigalam fekk picca ngay sab ba ñuy ñëw di toog ci saweet xëy ànd ak yow ilal jinaa ni ak ku xam na yalla may sa barke ak lu fi sutura ñi gën di xantu sayon xambaat ka may len salam na yalla julli ci bay laay ak ñu fet ci mo selmal ci may ñu ak mucc bes banu imaam sa xiir sunu xool góorgóorgu daanu bégal kañ ngay ñëwaat ñu defal sunu xool yi xool sa kanam na yàlla julli ci baay laay ak ña féete ci moom sëlmal ci moom may ñu ndaam ak mucc bés ba nu jëm maam sa xiir sunu xool góor googu daa ñu dëggal kañ ngay ñaar ñu defal sunu xol xol sa kanam selmal ci moom may ñu ndam ak mucc bés ba nu jëm selmal ci moom may ñu ndam ak mucc bés ba nu sëlmal ci moom may ñu ndam ak mucc bés ba nu jëm